nekk waaw yow terewuma la woon ngay julli am bis muy julli de fekk mbooloo mu bari ci waa Xurays ñi nga toog ci peggam ñu daal di waxante ñeen waaw yéen gaay ana kan ci yéen mooy dem comme famille sàngam ay buséré lañ dañu rey ay giléem bu demee mu set ci mbaq giléem yu nëb ya ak butit yu ndëb ya muy muy yanu ci ab ëmb bu ngande bu ñëwee rek nga xam ne mat na daanaka mat na téeméeri kilo bu fekkee muy julli rek mu dem teg ko ci kaw mbagg mi nga xam ne du mën a siggeeti na xaar ba mu sujjóot benn waaye bu texee di bu ñàkk sens ne man maay dem mu dem daal di indi loola mi ngi ko yenn attunu ko sax ba yonent bi alayhi salaam sujjóotee rek mu wàcc ko ci mbagg yi yonent bi alayhi salaam fa mu sëgg mënta siggi mu continué sujjóot mënta siggi ñuy daal di commencé reetaan kex kex kenn ko ne ndeysaan doomam bu ndaw faatima booba xale bu jigéen bu ndaw le mu ñëw fexe ndeysaan ba ba xëcc ko ba wàcce ko ba wàcce loole ci kaw waaye juróom bu góor bi yonent bi alayhi salaam daal di koy diir ba mu sori loolee ñu tegoon ci kaw kawam sànni ko fee ñu jàkkaarloog ñoom ne leen ban façon dëkkandoo ngeen dëkkaale ak man nii est-ce que dëkkandoo amul àq est-ce que nii la ñuy dëkkaaleeg nit ban façon dëkkandoo mooy bii léegi waa Qurays gën a taral affaire yi ci kan ci képp ku ko gëm ñu di la sonal di la gëtine di leen mbugal di leen jam ay xeej di leen gor ay jaasi di leen lakk ay safara yonent bi alayhi salaam mi ngi mi ngi mi ngi encouragé rek ay ay sahabaam di leen muñloo am bés mu wax Ammar ibnu Yaasir ak njabootam fekk daf fekk ñu di leen mbugal mbugal mu metti mu leen yaa aala yaasir yéen fami yaasir seen randiwu mooy ajjana muñ leen seen randiwu mooy ajjana kon muñ leen léegi nag bi afri méttee mu dégal leen dégal saxaabi ne leen nañ gàddaay dem réew bu ñu wax Abasa mooy Éthiopie ci atu juróomeel ba parce que déggoon na am na buur bu laabir bu fa nekk ñu dem bañ demee itam affaire yi yaakaar ne sedd nañu ñëwaat mu déggal leen ñu gàddaayaat beneen gàddaay ci atu juróom-ñaareel ba waaye yonent bi alayhi salaam moom mi ngi des màkk toog màkk di dajeeg ay jafe-jafe ak i nattu yoo xam ne xoris ñoo ko koy teg waaye mu muñ rek ñu dem ba yàgg ci atu fukkeel ba bàyyi taxam boobu di aboo taalib bi ko doon protéger ci mbaaxu yàlla daal di génn àdduna soxnaam xadi jot bi ko doon jàppale génn àdduna ah affaire yi gën metti nag bam mu toog ba yàgg mu ne waaw ko am kër baay am nga kër ndey xaar ma dem sama kër ndey ba xam moo ñooy waa taif ngir saqiif bu ma demee woo leen ci islaam ndax buñ duggee ci islaam islam xaw a am doole bokk waa gis ngeen ba mu demee lam fa dajeel neexul neexul mu del si màkk léegi nag mu sens stratégie ne léegi naay topp giir yi giir sàngam ak giir sàngam ma di leen dàkk ci période aj bi parce que moom nit ñi daan nañ aj si Màkka ak nañ ko daan ajee bu ko defee léegi léeg itam muy dem di di gëstu di topp nit ñi ci ci biir kër yi di waxaat di waxtaan ak ñoom di leen woo ci jaamu yàlla ba nga xamee ni moom mi ngi ci aqaba ci côté Minan bés am na benn kuréel bu jóge Madina ñu ko ci giir Xasraj ñoo xam ne yàlla namoon na ci ñoom yiw ba mu ñëwee mu proposé leen islaam daal di leen di jàngal dara ci alxuraan ah affaire bi dugg leen bañ demee seen réew ca madina ñu wax ko seeni nit commencé woote commencé leen woo pour ñu dugg ci islaam am ñu commencé gëm di commencé gëm ba islaam siiw ci madina xaw fa am doole bañ toogee ba déwén sa ba ci déwén sa fukk ak ñaar ci ay góor yu jógee. madina ñëwaat ñu dajawaat ak ñoom ñu jaayante ak moom mu daal di yónni ku ñuy wax Mus'ab ibnu Umayr ne leen boole naa leen ak kii bu ngeen demee ba di leen jàngal alxuraan di leen jàngal seen diine ñu toogaat ba at ma ca toppaat e, juróom ñaar fukki góor yu jege Madina ak ñaari jigéen ñëw dajeeg yonent bi alayhi salaam foofa ca ca ca Minan ba dem ñu jaayante ak moom ne ci lan mooy bés bu gàddaayee ñëw fekk si leen Madina danañ ko protéger aar ko comme ni ñu aare seeni soxna ak seeni doom waaye ci kaw bu gàddaayee nag parce que ñoom mënuñoo ñëw di ko aar fii ci Màkka waaye yonente bi alayhi salaam yonente la boo xam ni yonente la boo xam ne amul droit gàddaay lu dul ci ndégalu boromam tabaraka wa taala ah léegi nag mi nga xaar ndégalu borom bi pour mu gàddaay ci biir loolu nag digal na saxaaba ku mën a gàddaay rek nga dem ñu bari gàddaay waaye moom sëñta gàddaay mu toog di toog mu toog di xaar ndigalu borom bi tabaraka wa taala azza jàll jalla loolu la doon xaar fi ne moom rek lay xaar xaar lu dul borom bi jox ko mu gàddaay eh, jaxaa ji faq na faq na yooru na jóge côté asamaan darapo bi darapo bi mi ngi yëngatu ak doole e jaxa ji na xaacu na sonor bi sone na ew am na xabaar bu ñëw léegi jóge ci agence Seydina Muhammad bi tasaare xabaar yi mu ñu xamal ne yonent bi alayhi am na ndigal am na ndigal bu jóge ci boromam tabaraka wa taala pour mu gàddaay dem madinatul munawwar ci saasana gàddaay loolu lañ ko wax na jóge màkkatal mu karam dem madinatul munawwara te sax gàddaay na nee nañ gàddaay na léegi euh, jo ñu ñu ngi jokkoo ak sunu correspondant bi nekk foofu ca Makka tal mu karama ñu koy wax oustaz Mouhamad Bachir ñëpp xam ko ci Mursidin Naasi orienteur la bu laabiir oustaz Mouhamad Basir biñ jokk ak moom dëggal na xabaar bi nee na xabaar bi am na nee na bi alayhi salaam gàddaay na jóge màkkatal mukarram jëm madinatul munawwar ci bëccëgu bëccëgu tay bii waaye na ci secret la gàddaayee ànd ak xaritam ba waa Màkka yëguñu ko radiyallahu anhu Aboubacar Sadiq léegi dem nañ dem nañ dem nañ eh. am na message bu ñu yónnee léegi ñu ne yéefar yi ñi ngi leen di wër mais ñi ngi laqatu ci benn xunti yéefar yi nag gisuñu leen gisuñu leen fekk ñoom ña ngi ci xunti ba am na benn waykat sax ndeysaan bu ñu yónnee message ne ñoom yéefar dañoo jortu ni jargoñ bi ci buntu xunti mi bu fi nit duggoon lënd dina dagg fi tax ni mu ragale nit boof ci buntu xunt mi ba nen fi bu fi nit duggoon dana naaw kon fii dara dugg fi mu yéene ñu beneen message nañu waaye nag protéger yàlla ku yàlla protéger moo gën a garanti ay mbubu koŋ yu ñu belende nga tegale ko wala nga dugg ci ay tata yu ñu belende nga xam ne dara mënu ko bët garanti yàlla ak a keeraange yàlla moo gën a wóor kon yàlla aar na leen ca xunti ba kon ña ngi xunti ba xamaguñ nag luy xew waañ ña ci xunti ba ña nga ci ba